suñu xool dafa fees ndax li mu feese mooy xam li xam ne tànk boo yëkkati liggéeyal sëriñ tubaa nga ci jublu ndax daanaka lu mat fukki at ñu nekk ci sa gannaaw di la di liggéeyal sëriñ Touba ci liggéeyu Serigne Touba bii ñu la dénk démb sëñ Cheikh bi mu fi ñëwee rek fàttali na ko nga jël sa tànk nag fas yéene fépp fu ñuy liggéeyal Serigne Touba nga nekk ci. jiitu ci ñëpp nag te mosoo cee des gannaaw benn yoon man de gëm naa ne sa dund na sa maam bu baax ja defoon jël léppam joxe Yonent bi sallallahu waaw njureel gaag mbokk gaag lépp da nga koo jël jëndi ko taalibe mu ko tàmbale woon ci sëñ Saaliw ba ci Alaaji Baara ba ci sëñ Sidil Maxtaar ba ci sëñ Muntaxa mi tey mm-hmm. dama ne su fekkoonte ne tey màggal gi àgg na fii mu mu àgg nit ñi xam lii ñu xam ci tuubaa ak xam-xam bu yaatu bi nga xam ne dugal nga ko ci ak liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey nga sëñ Touba ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak yow ci di liggéey day saa yu ñu xëyee dañuy gën a soññiwaat suñu bopp ndax ndax dafay mel ne defuñu dara ndax ñun ku ci nekk dana am guddi sax nga dem jéem a nelaw ñaari waxtu wala ñetti waxtu mm-hmm. waaye sëriñ Basiru bu ñu tëbaskee ba noppi ba màggal Touba di jàll dootu nelawati ndax liggéeyal sëriñ kon nag Mbàkke ñun li ñuy lay defal rek mooy ñaanal la suñu borom yàlla na la fi yàlla yàggal te wéral la ndax gëm nañ ne boo fi yàggee rek liggéey Sëriñ Tuubaa dana àgg fii nga xam ne fa war a àgg kon nag ñoo ngi ñay ñaanal yàlla nga àdd sëñ Muntaxaa mii nga xam ne moom sëñ Basiiru ñu tuddale sëriñ Basiiru mu jël léppam nag lu bari dénk la ko te nga mat ko sëkk yàlla yàggal leen ba lépp lu la teg ci liggéey nga liggéey ko na ko bëggee bàggalee ko fa ko bëggee ci barkeb Sëriñ Tuubaa te it bis bii day nga xam ne ci la Seex Ahmadou Bamba gisee woon ak borom daaru muxti mm-hmm. ba Serigne Fallou joxe ndigal ne lañ koy màggal nga ñëw ci def lii nga def ñoo ngi ñaan ci daraje yi bis bii ak borom daaru lépp loo sombeeti ci àddina rek yàlla na nga ko àggal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ bi suñu xool dafa fees asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin bokki julli ji teew ak bokki ñu ngi leen di nuyu ci bis bu tedd bii di bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Fati daje woon ak xaadimu rasul mu bàyyi woon ko ab liggéey di yoon mu sàmm ko yokk ko ba sëriñ bi dellu siwaat muy daje seen diggante ñoom ñaar ngir lu ci ne mu war koo leer fa mu toll waaye Cheikh Ibrahima Fati sëriñ Tuubaa da ko waajal chana sud adudaka bi axiika loolu moo am ci seen diggante ci histoire ñëpp xam nañ li ci sëriñ bi waxoon ci boole geneen suñu borom boole woon ci ëzël Cheikh Ibrahima Fati dëggu ci sëriñ Tuubaa bëgg sëriñ bi sëriñ bi gën ko jëmam mu doxal diggam ak sëriñ bi ngor gu ma sëkk pëstif bu ma sëkk jaayante gu ma sëkk ba sëriñ itam doyloo goo xam ne dër mënu caa dolli ko ndax yoon wi nga xam mooy lépp sëriñ bi sëriñ bi di dem jël lépp dénk ko loolu fala kóolu te bi mu dellusee itam doon na ko sëkk ab liggéey mooy sàmm ko ba du yàqu waaye da koo sàmm ba noppi yokk ko kon moom bisam képp ko xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa rek war nga koo delloo njukka ci bis bi ngir xam ne Sëriñ Tuubaa lépp mooma waaye ci moom la ko jaarale ba yoon bi ak si tey lii nga nett li fii léegi noonu la demee ci Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadi ak Cheikh Mamadou Lamine Bara ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bàyyi doon ca yooyu jamono kon bu ñu fi ñëwaatee tey di siyaare bu baax ki nga xam ne tey moo fi nekk wuutu fi kilifaam ya di sëriñ Abbas di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér di ñaan Serigne Moustapha Absa mi nga xam ne mooy xalifa suñu Modou Balla ñëw siyaare Serigne Abo ndax Cheikh mu Mountakha ci suba rek la yóbbantewaat di ma wax ne ma yónnee na fi délégation waaye na dikkaat ci Serigne Abbas teewalaat ko fa di fa jëmmam ne ma ndax fépp foo ne maa a teew te mënu ma faa teew rek yaa fa war a teew di fa sama jëmm mm, ba ma demee Sëñ ko mu yëbbantuwaat ma ci sëriñ bi kàddu yi cant xamal ma ne boo demee nee ko na Cheikh Ibrahima Faty toppoon sëriñ Tuubaa rek noonu lañ fa séenee ànd moom mooy lépp lu mu digle ñu def ko lu mu tere ju bàyyi ko kon loolu seen diggante ñoom ñaar ñëpp xam ne ko ndax ak Cheikh mu tax yónni na ma fi bu yàggut ginnaaw bi ñëwoon na fi boppam siyaare si sëriñ bi ngir jokkali diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fati di leen sant bu baax di seera njabootu Cheikh Ibrahima Fati gépp waxtu ne dama koy wax dama naa leen bëgg ga seen maam bëggoon Serigne Touba moo feeñ suñ digg ak yéen moo tax ñun ñëpp fu ñu dajee rek ku ci ne da ngay ëmbal sama ak cofeel boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem di nuyu Serigne Abou bu baax di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ak pëstéefam ndax moom léeg mu ma wax ko sax ma ne ko ni ngay sonne ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi loola war la waaye nit nag ca la ko war mu def ko ca lañ koy sant ndax képp ku bokk ci samaam bu la xasaa yoonu ci yoonu Sëriñ def na ko war waaye nag moom pëstéef la ci demee ndax man mii de xam naa ne lu fukki at ak benn wala ñaar ñi nga ànd ci liggéey bi waaye mosuma ko ci ter dara lépp loo xam sant naa ko ci dana ko def tey Sëriñ Tuubaa rek la ànd ak ndax fukki at ak ñaar kooku ànd te mosoo dégg soxlaam. Mm-hmm. kooku Sëriñ Tuubaa la àndee yow. waaye nag sëriñ moom mm, de Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax rek. Mm-hmm. kër Sëriñ Tuubaa di fa indi moo gën di fa jëlee. Mm-hmm. ndax boo fa di indi. waxtu ne da a yomb. leeral nga boo xam ne. lim fi andi ci xar ëpp na ñeent fukk ak ko faggul képp ku ci moom. wala képp koo xam ne nag loolu. buñ ko xamee noonu rek lépp da yomb kon ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci yoon wi nga xam ne soobu na ci ci liggéey Serigne Touba ak liggéeyal maamam suñu borom gën ko ci kattanal may ko ci ak wér may ko xéewal goo xam dana ko mën a jëf ànd ko njaboot gépp ñu yàgg fi ñëw te yàgg ko fi fekk te lépp loo xam ne jëf nañ ko ngir sëriñ biitam itam suñu borom nanguñu ko dugaluñu ko ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa di ñaan Sëriñ Tuubaa nongu ñu ko hmm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala